ak Siré hmm. sama waay la ah dañuy yàgg di duy soo ci ay sujets yu bari hmm. donc tey dama kontaan lool partager plateau beeg ñoom di ñaan aussi kàddu yi ñu fi yëkkati nekk kàddu yi am solo pour hmm. askan wi et puis ñu jëlee fii loo xam ne ku nekk dina la mën a yokk waaye ah, maa ngi lay jaajëfal vraiment ci invitation ñoo ko bokk buur Bouna Kanté ñu ngi lay ziar yooyu dina bëgg bu baax Cheikh Oumar Talla sànq balaa ñoo dugg defal nga ñu ay cours yu am solo ci wàllu yi waaye loolu dina am suite parce que tey li ñu jox ah, ci culture pulaar. Ah, waaw mosuma woon gëm ni lu mel noonu peet nga ko borom Pikine maa ngi laa nuyu. maa maa ngi nuyu waa Pikine. Ah, waaw nuyu waa Fouta yëpp kër Guèyeum bii bi dañuy seetaan. sama nijaay ñu ngi Gabon. xam nga nag sama mbokk pulaar yi moom. Mm-hmm. ñoom ñooy premier immigré daanaka ñu ngi fépp ah à Sénégal. Euh, naturellement damay nuyu Pikine parce que nag. Euh, comme li ñuy wax guddi guddi Pikine bi ñu waa Sénégal ñëpp hmm. ñuy wax ni ñëpp am jàmm hmm. euh, tey nag sama ex femme sama hmm. ex femme maam jaara femme ah. tey la anniversaire am non dama ko bàyyi parce que moom Waly Seck moom suufu ko ak jël ko mais grave ma koy ñaanal parce que nag euh, xamante nañ lu ëpp fukki at nekk aussi jigéen bu nekk jàmbaar euh, ñemee féete aussi. Hmm. et euh, taxaw aussi ginnaaw raay bi nga xam ne fa la dëkk mu nekk fa fierté parce que hmm. ñun dañuy jàppale rek nit ku nekk fi nga dëkk rek. Hmm. ambassadeur foofu nga. donc ma koy souhaité joyeux moom balaa maa ñëw métti na trop. mais allah ba ñëw. jërëjëf daal ñëw naa waaw <laughs> li nga daanelee na jërëjëf. Cheikh <laughs> ñëw bu am solo. waaw jërëjëf président ñu ngi lay nuyu bu baax si récit di kontaan di ànd yow ci jotaay bi également. di la yóbbanti nuyoo gaa ñëpp. waa d'accord waa réew mi ak waa dama bëgg a tooñ euh, <laughs> Cheikh Omar. ne ko na bàyyi euh, Mame Diarra Fam te <laughs> jàpp ci Ngoné Saliou. <laughs> waaw ne ko euh, xam nga Cheikh Ba Cheikh dafa wax léegi ni mu ngi nuyu pulaar yi. waaw. xam ñu ñun dañuy wax ne doko bandu mm-hmm. ma xaw ko feelu rek ah. pour wax ni mi salminima bandiraɓe onon foofu uh-huh. waaw di di la nuyu Cheikh Ousmane di nuyu uh, Bouna mm-hmm. uh, Bouna Bouna Kandé uh, juste rek benn mot avant ma lay jox s'il y a ci trois ans yi ñu génn mm. dans l'espace politique et médiatique, du camp du pouvoir mm. Euh, des personnalités qui se sont révélées euh, dans euh, le débat politique mm. le débat contradictoire mais aussi le débat constructif moom Bouna Kandé bokk na ci quoi à chaque fois mos nañu dajee benn yoon Seneweb mm-hmm. banc public dama koy suivre aussi ci yeneen plateau yi bien sûr ak loo ñàkk ànd ak ñoom mm. <laughs> parce que man opposant la loo ñàkk ànd ak ñoom moom au moins ak ñeneen mais mm. ñu vraiment nombre restreint. ñu ngi leen reconnaitre leur substance dans leurs idées. Hmm. et leur consistance dans dans leurs pensées quoi. Hmm. maanaam mosuñu daw. Euh, saa non non daw mais bu ñu ñëwee dañuy ah. waxee xam-xam. waaw ah. comprendre nga du waxee rek ay affaire ñoom du ñu xuloo ak teesante. du ñu nekk ci ay logique lu may tuddee naka sa kandak ah. comprendre nga ñoom il pose de la matière. léegi nag tu peux être d' accord comme tu peux pas être. tu peux ne pas hmm. mais il n'en demeure pas moins que li ñuy samp dafay solide. il essaie tant bien man d'ailleurs su ma déggee Macky Sall di casse naan. waaw ces gars étaient incapables de. kii de défendre le bilan et, et d' ailleurs c' est Macky Sall qui le premier responsable parce que ceux qui ont cette capacité de pouvoir expliquer ce ki la fait. Mm. mettre leen au devant. ay saagakat ak xulookat ak waxkat la yow. dafa mel ni booy xool APR euh, ñi nga xam ni ñoo jekku affaire yi. Hmm. ba war ko mën a expliquer am yenn niveau yi. Hmm. dañu nekkoon en second rôle. ñi ñu fi jëtaloon fiisaloon mooy ñi mën a wax Ousmane Sonko violeur nga hmm. kaas saaga et cetera ak yooyu. au détriment moo tax ma xalaat ni même Amadou Ba. Euh, il a tout intérêt ah. pas commettre. en termes de stratégie de communication l'erreur que Macky Sall avait commise mm. ça dire que comme da ngay def politique te da nga bëgg li ngay wax ñu jox ko sens hmm. da ngay indi ay gars yoo xam ne ils ont de la matière et la substance dans les idées mais boo fi après gars yi dañ lay déglu rek nga wax Sonko lu la neex après Ali Kadaj gaa ngi fii euh, li tax affaire yi si cher <laughs> expliqué woo ñu ko ba léegi lu tax dëkk bi doxul expliqué woo ñu ko ba léegi et booy def politique publique on a besoin aussi que les gens li ngay def nii lan la. ak impact bi. à hmm. court terme moyen terme kon profilage bi dafa am solo. ci tànn ci ñi nga xam te ñan la. maa ngi gërëm bu baax euh, Saliou Sarr. ak Moustapha Mbodj yaakaar naa yéen moom yéen a jàpp ci anniversaire bi. mais Ndeye Sarr damaa bëgg waaw waaw yéen ñëpp ngeen di wax Ndeye Sarr joyeux anniversaire. ci démb jaar naa dig euh, waaw Adra. bi suma suma suma yaay suma xarit. Mm-hmm. parce que nag ndax euh, mu nekk suma suma suma nit du tey. bi nga xamante ni mu woon Pikine mm-hmm. daanaka mu def fa ñeenti at def mm-hmm. aussi liggéey bu am solo mm-hmm. ci wàllu sécurisation parce que avant Guédiawaye la ndikkoon a nekk mu servir Pikine mais bi mu nekkee Pikine jaxasoo na ak imam yi ak jeunes yi ak ASC yi ba finalement dañ doon ñaan pour moom muy des Pikine donc aussi bi mu nekkee dikk aussi Euh, gis naa taxawaayam parce que man nit ki laa xam la personne. d'accord koo xamante ni nit ko koo xam ni foo ko fekk di nga xam ni. Mhm. Euh, taalibe la. da koy nëbb mais lu mu am ci jàqee la koy def. ko nuyu de passage. Mhm. gaa yi fekk tam enquêteurs yi ma nuyul ma grand ñëw mbay ah, ñëw ñëw Mbaye commissaire <laughs> Adramé. waaw non non xam naa sax du fi xaj quoi. mais mais mais quand même hmm. maa ngi lay wax la qualité de nos hommes. Euh, surtout euh, surtout les officiers de police. Mm. de la même manière les policiers de gendarmerie. Mm. parce que ñooñu maa ngi leen découvrir euh, foire. euh, benn année euh, ce qu'on appelle e-foire. Mm. la retransmission mm. la couverture et retransmission en direct de la foire. Oui. sur les réseaux sociaux maa leen ko hmm. defaraloon xamatuma sax ban année. Hmm. avec Bichri euh, ça m'a permis de travailler en étroite collaboration avec la gendarmerie. Euh, le commandant Ibrahima Ndiaye. je hmm. pense Ndiaye euh, chargé de la communication. pendant 15 jours. daanaka maag gendarme yi ñooy toog. mais j'ai pu mesurer grand. Euh, même su fekkee ci euh, échelle bu ndaw bi. Hmm. souvent il peut y avoir des dérapages des bévues. j'ai témoigner. Hmm. Euh, la qualité de nos officiers supérieurs dans tous les corps. et même de nos fonctionnaires ah. ce hmm. qu'on appelle les hauts cadres de l'administration. ñooñu moom dama a dund quoi. ñooñu dama Sénégal xaw ma lan nañu ñàkk. mais du ñooñu. du cadre. du ay homme de valeur. d'accord peut-être ñu xaw ñàkk rek. mooy mooy njiit bu mel nii comme Serigne bu mu ñëw remplacer <laughs> Macky Sall. <laughs> ci pàcc boobu parce que ni ñu koy waxee fële noonu la koy waxee fii alors. Siré très rapidement laataa ma ñëw ci euh, Bouna nan nga mën a comprendre ñëpp en tout cas ñii candidats yi nee nañ matal nañ seen parrainage yàgg na sans pourtant ñu wax ñu limba ñii taxaw ne nangam ci ay parrainage dañu am te boo xoolee fichier électoral bi yeggul à ce niveau lan moo ko expliquer surtout jamono jii nga xamante ni. depuis bi waa Pastef tàmbalee et tout on a vu même au Fouta ay ay ay ay ay. ay wëlis. waaw waaw. waaw mais loolu loolu loolu loolu c'est euh, sui generis politique. Ah. parce que xam nga action politique dafa am ay similitudes ak làmb ji or làmb nag. Hmm. bu combat bi jotagul ku ne da ngay bàkk daal di kañ sa mbër gis nga signature contrat. Hmm. mooy équivalence fi ñu toll nii ci politique parrainage c'est-à-dire ku ne di nga fëgg sa dënn ku ne di nga wax lu la neex waaye bàyyi laat mu baax ma hmm. da daan wax ni bu heure wax jotee hmm. ku nekk li la neex ngay wax waaye bu heure jëf jotee ki nekk ku nekk li nga mën rek ngay jëf <laughs> xam nga léegi nag fi toll ni heure wax nañ toll c'est tout à fait normal na ku ne wax lu la neex hmm. bu ne sax nga ni am naa un million wala vingt millions de parrain waaye heure jëf ga nag mooy conseil constitutionnel bu wootee ne indil say kayit ma compté foofu lay heure jëfi quoi bon moo mhm. de bonne guerre ah. c'est de bonne guerre mais comme ni ko bu Bouna doon waxee sànq. fichier bi moom. ci 7 mm. euh, millions 300. côté yooyu lay toll. voilà euh, donc bu ñu nee ku nekk ni am naa temps. bu ñu ko cumuler mu romb fichier bi. Mm. soit mën na expliquer ni ay doublon c'est-à-dire ki pare ne kii. moo duxul moo ñëw. parrainé kële yooyu yëpp xam naa ne doublon yi moom. dana dana bëri trop. ci affaire kii ndax Sénégal moom nit ñuy fonctionner. Hmm. daanaka noonu la quoi. est-ce que da cee joué dara. Ah, non non non. parce que fa taxawaayam ni ñu wane. ni ñoom euh. ñangata ñu ngi annoncé sax ay parrainage international ci week bi. waaw de l'autre côté également en tout cas ci li ñuy wax mooy ni bi ñu tàmbalee la ñu yëg ni mu ngi fi. voilà mais mais mais mais foofu li ma bëgg a wax sax mooy comme Pastef euh, tout comme Benno Bokk Yaakaar. Euh, pour man ñoom ñoo faussé parrainage bi xam nga lu tax. Hmm. parce que pour man parrainage bi doon na am équité trop ah dès lors que ñoom mën nañu am candidat te duñu ko jaarale ci parrainage populaire. ñoom dañu waroon a bàyyee ñun mbër gu ndaw yi ñu dem xëccoo ji foofu. Hmm. comprendre nga yow mais yow boo lekkee sa pot yi ginaar ba pare ñëw di seeñoog ñun di yax yi xam nga loolu dafay poser problème te yow yaa ngi amoon sa benn parti bu duuf ba pare lekk ko pare ñëw donc képp koo xam ne ba ci Khalifa hmm. mën nga am. candidature boo xam ni mën nga dem parrainage élu. Hmm. yow hmm. Hmm, ngir yàlla waroon fekk si dara ñi nga xam ne ay candidature indépendante ay candidature yoo xam ni bon ay mbër yu ndaw nañu. nañu ko waroon kon donc le le jeu pour man est biaisé de le départ. et que ñoom en réalité euh, du parrainage moo leen tax a jóg. Ah. mais mobilisation politique moo leen tax a jóg. ah euh, c'est-à-dire que euh, dañuy wan yu mbër yu ndaw yi. Hmm. ñoom seen doole te duggaguñu ci combat bi. est-ce qu'ils l'ont réussi je pense oui mais le camp bële euh, aussi. Hmm. je pense oui mais en terme de euh, de retour sur impression. Hmm. Euh, coow li ak bruit bi ci côté Pastef la gën a nekk. est-ce que comprendre même si ñii aussi ñoom waa nguur gi bennoo. Farba eh, indi na. waaw wëli su parrain eh, keroog ñi ngi doon def seen parrainage Dakar et